moo leen di nuyu di leen di siyaara di leen di ñaanal di sàkku señaan ñaan <clears throat> tey nu fas yéene partage ak yéen ay kayfiyaat yoo xam ne dinay yokk sutura luy sutura nag mooy lépp loo soxla rek macha allah yàlla bette ci xéewal ba soxla boobu mën a faju ndax nin ko waxee kaadal faqru an yakunu kufran dane xawoon tuut rek ñàkk dina ñoddi nit yóbbu ko si ak kéefar lu tax mooy baraana lu nit di def te bu fekkoon ne sutura nekk fa amaana du koy def doonte woon ak du illa du lay du lay si for téléphone fay ko ba nga xamné ne borom bu ci woté du la jot nax lan yang ci yakar na soko jaayé ko nga sé am juróomi fan wala ñaari fan wala semaine boo suturloo lol nak du sutura poson la ki nga xamné ne ma ngay yar gattam di ci yakar ëlëk bu ko jaayé mu man ko fajal ay aajo nga dem yewi ray jaay wala nga dem yewi jaay ndax tolluwaay la ama wala jikko la waaye loolu macha allah ak loo say man di am si wërsëg loo say man di am si xéewal poson la ki nga xam ne bii dafa bàyyi ñepp it la dénk la ñëw di jël si waan ba su dee ay billet la su dee weccat la nga war ko ko delloo comme ni mu la ko joxe woon mu ñëw macha allah euh, dama ko denkantoon keneen fii laa ko jencoon nangam nangam yooyu yëpp bu sutura day am imaan it mot sëkk yàlla mën nay dimbale jaam ba muy mucc si xeet yu demee noonu <coughs> no yene patase ak yene ayat bo xamne ne ko fekk ci suratu takhabun buma jumut wa man yattaqillah yaj'al lahu mahrajan wa yarsuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuhu qad ja'ala allah li kulli shay'in qadran ay boobu danga koy jàngi mille un junni ak benn lii képp ko xam ne bi ajo bett na la aajooy war na am tudd taral sama doom aajooy mashallah weer wi dee na location taxawagul aajooy mashallah bëgg naa lu ma tarale njaboot gi nga wéetal yàlla jàng aaya bi junni ak benn def si tawasul ak def si xasdu dogu si yàlla bette la si mbaaxam si kàttanam ak yërmandeem yàlla dina la defal sutura ba la nga doon ñaan yàlla defal si buntu bu rëya rëya rëya rëya rëy allah baaxee nañ ko ay jaam yu bare bare bari nu dogu si yàlla won leen bunt ndax dinaa di wax ni buntu yëpp mën nañu tëjee waaye buntu borom bi du tëjee suñu borom jaam bi saa yuy dogu rek di deexanteeg borom bi di koy jox boppam di koy wax ne ko maa ngi nii ku doyo di laa ko xeebu la waaye yow yaay lépp aaju bii kat maa ngi lay ñaan nga <clears throat> defal ma si sutura macha allah ndab lu yees boo ko tàllalee nit ku am xol te mu jege mbana du tas yakar bu lako duyelul bu mu fees dana la ci defal ay kuddu yu am solo ta sun borom a ëpp mbana tay sun borom ma gëna mëna joxe kon si misaal toujours rek bu dee ñaan na xol yi di set na yéene di rafet nan di am yaqin lol tamit si ne ñaan mu ngi gis mu ngi dégg tayit ma sha allah du yakar ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه قد جعل الله لكل شيء قدرا ay bobu ngay jang 1001 1001 boko sété moy 13 multiplié par 77 77 moy tolok kanz 13 moy tolok ahad lepp day delu war ci yalla muy junni ak benn junni ak benn macha allah moom ngay def sokay def nak day nek khalwat manam da ngay wet bako commencé do nek si benn yitté adina àddina macha allah yoon bobu nu koy hamne yàlla kep ko xamne am nga aajo bu tar nga bëgg ci yalla berte la ci xéewal ki nga xamne bi bëgg nak yëkëti ko bëgg na ko bëgg na nu lamuy am ci hayba manam bayre maa ngi ko yebal ci soratu yaasin soo seetee miimaat yi si yaasin da ko fek muy trois cent six miim nekk si soratu da lay jox turu yàlla bi ne wax qaxaaru wa huwa qaaxirun fawqal xibaat macha allah ngir am ngir barkeelu si turu yàlla boobu nga xam ne 306 lay tolloon nga seet miimaat yi si yaasin doon 306 da ngay bind soratu yaasin mim boo àgg rek yaatalal miim bi nga bind qaxaaru lii li demba qaxaarun li samba qaxaarun li njaga qaxaarun li matar njaay noo mën a tudd rek macha allah nga siifur ko ak turu yàlla qaxaar nga def ko si miim loolu su paree danga koy def safara boole si maul wirdu parfum maul wirdu sungu fo xaalis danga koy sangu juróom-ñaari fan tàmbali ki bésu dimanche moy gën su fekkee lu jàppandi la lii yoon la boo xam ne képp kuy wut yëkkatiku macha allah kuy ut bayre soo si dogoo yàlla dina la ko defal si mbaaxu yàlla ba tey ki nga xam ne dafa umu ki nga xam ne dafa umu maa ngi koy dello si suratul waqiha waqihan am na mushaf am na kaamil yoo xam ne quatre-vingt-seize ayat la lanu ko def am na si kaamil yoo xam ne quatre-vingt-dix-neuf ayat la day seet bi nga xam ne quatre ayat la boobu lay bind ñetti yoon saa yu àggee si wataal xin man duut mu baamu ko ñetti yoon loola su paree saafara lay doon da koy def ndox am na garab bu ñuy wax pofton te mu bari sekkere lool mu jéema ut xob ya mu ut si 99 xobu poftan 99 xobu poftan bu si nekk mu bind si alam nasrah su paree na weer xob yi ba mu fend na weer xob yi ba mu wow xob ya na koy def sunguf moo xam daf ko wal moo xam daf ko dëbb saafara ba nay saafara بالله الذي لا إله إلا هو jël ci ndox bi ndoxu saafar bi comp ci sunguf ba def ci sangu lu nit umu woon umu umu umu umu ci kàttanu yàlla su ko defee kumute ga dana deñ kumute ci xéewalu am wërsëg dara tege sa loxo umu it ci macha allah am sëy umu ci am jëkkër ba mu si am liggéey ak lépp loo xam ne xeetu bolokaas la la nag mooy lañuy jéem ta sottiwul dinaa koy wax ne téléphone ak nu taaru taaru taaru su bolokewu du amal njariñ boppam lu lay dimbali nag ba buñ la wooyee jot la so wootee jot ka ngay woo loola su débloqué woo lay loola di man di nekk la loola di man di am kon nit mën naa mi xéewal si misaal mën na yor téléphone bu am classe <clears throat> wante macha allah xéwal ya dara ak si wut bolokaas dina koy waral lii nag yoon la boo xam ne day débloqué macha allah koo xam ne dafa umu kon ñi nga xam ne nooy topp Wadduha TV loolu la leen indi woon te si luy yombalal xéewal di ànd ak sabablu comme ni koy waxee nag di ànd ak sabablu di jubal. macha allah di ànd ak tamit di sàkku ngërëmu wayjur waaye ngërëmu képp ko yàlla gërëm macha allah waaye di warmal képp képp koo xam ne doomu aadama la kaddu yi lu si jub nu koy dégg jéggalu lu si jub astafirullah lu si jub nu ngi koy sant yàlla jalla jalaaluhu wax sa kamal lu si safaanu nu ngi koy jéggalu seen mbokk la alxaaji Modou Cissé bu Wadduha TV di wax ne mën ngeen noo topp si www.wadduha.org incha allah ku fa lépp loo xam ne bëgg nga ko am sa information Modou Cissé wala Mara Cissé wala butigu Wadduha yi moo xam produit yi nga xam ne moo nekk si Wadduha fa tabarakallah di nga ko mën am macha allah yal na yàlla faj aajo yëpp yàlla yombalal ñëpp te dëkk bëgg sangu asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin